jadi xiif jotagul ba tey ci seen scandale di jour de ce 23 ñu déglu ci Adama Fall kàddu yi mu yëkkati. dund nañ APR. Hmm. su weesoo duuduka amul keneen ku ca bokkoon ba ñuy sos suñu parti. motax tax ma la ne ñu ñewon wali Liyaan ci ñu buubaat sen bagage. ñoo buga sen yi bagage parce que ñom ngelaw li rek lañuy top fu ngelaw dem dem fa. fa ngelaw li fété lañuy fété duñ tok fenn de ndax ngelaw dafa mën naaw de. ngelaw ci ngelaw loolu c' est ça la vérité. Mm-hmm. parce que affaire waru bari ciow d'accord dañu am ay dañu amone ay candidat non. Mm-hmm. momon amoon 11 candidats yu déposé woon seen candidature 11 candidats à la candidature. 11 candidats à la candidature. candidature ñenn ñi désister dem soutenir ay candidats ba président tànnee candidat ba coalition Benno Bokk Yaakaar tànnee candidat ñenn ñi bañ ne duñ ci ànd kenn rek moo taxaw ne d'accord na ci li président wax dama ciy ànd. Hmm. muy Abdoulaye Daouda Diallo. Manam, il était candidat mu jël candidature tek ci souf hmm du ne président ki nga tan and na ak mom te damay campagne ak mom wacc ci terrain bi dem gagné localité ba bobu ba tay kenn dégg ko mu wax suñ demoon élection suba mu wat localité hmm Abdoulaye daoudou Diallo. suñ demee élection suba mu wat localité hmm maanaam day gañewaat département de Podor. Hmm. kenn dégg ko mu wax. mu ne parti noppi. ñii wax yëpp suñ demee élection suba duñu gañe seen localité. ah bon waaw. mu ngi noonu mu nekk mbirum euh, li nga xamante ne moom euh, APR kaddu yooyu la Adama Fall yëkkati waaye nonu la ku ku ku ku mel ni loo xamante ne ngelaw bu ñëw yóbbu la doo gore waaye doo dégg jërëjëf ndax baadoo la ngay doon. ndax bu neexee ngay toog bu naqaree ngay daw te man nit yooyu nañ ci yàlla musal musal ci mboole mu doomu aadama ndax baadoo la moom ku ci nekk saa yoo xëyee julli war nga ñaan yàlla na ma yàlla yàlla musal na ma yàlla musal ci baadoo la ndax baadoo la moo la mën a gërëm léegi saaga la suba rire avec toi le matin et te mooy baadoo la je te dis, vois, le tigre, le boule.